bu ma kenn wàññi ngeen di ma wax lu ma neex kon ma tiitaru merci beaucoup monsieur le président am na lu may wax na bu ko boole ci minute da ko ci def ba ma ba ma ne la commencé na merci beaucoup monsieur le président les ministres le cabinet les cabinets du ministre les collaborateurs du ministre chers collègues dama wax ni Karim Wade du candidat moom loolu fanaan na biti dama ne du nu daw du nu des gannaaw noon yi di nu ree nun waalo waalo waalo du nu daw nun du nu des gannaaw noon yi di nu ree dama bëgg a indi tuuti historique ci le passage de son excellence le président Abdoulaye Wade bu mu opposé pendant huit ans pendant douze ans pendant vingt six ans déggu leen ma nag acharnement mu ngi seigneur ci Senghor ak Ablaye Wade boo defee élection bala ñoo joxe résultat yi ñu jàpp ko jàpp ay acharnement mu ngi ci Abdou Diouf ak Ablaye acharnement mu les armes de Kermassar. Massar te acharnement mu la guerre la la rencontre de Maka acharnement mu la guerre de Loro Joal euh, tout dernièrement mandat ne wan dans tout cela il préfère dialoguer avec le président de la République Abdou et sa première chanson et sa dernière chanson était de je ne marcherai pas sur des cadavres pour accéder au palais lii la suñu gu baax dialogue moom ci ñun la fekk baax nous sommes libres hein. nous sommes démocrates nous sommes libres ñun dañuy dialoguer loo xam réew mi dialoguer monsieur le ministre yow nag ma wax ak yow sama doom nga maa la jur avant tout Macky Sall anduma moom de mais dama koy félicité nag parce que lii bu amee dialogue dialogue ko waral ma di ko félicité courage à deux mai bi mu jël ne troisième mandat bàyyi naa ko looloo désarmer armée yi lu ci ëpp troisième mandat leen taxoon a jóg heureusement bi mu ne moom réew mee ko gënal jëmm ba mu ne bàyyi na maa ngi ko ciy félicité yow itam nag maa ngi lay félicité xam nga lu tax fan yi yëpp damay daagu dugg daagu ñibbi te duma xalaat dara xale yii nga xam ne dañ maa yëpp dañ ma ne dangaa am dangaa mel ni 40 ans nga man leen déedéet xel mee demoon léegi xel mi dellu si kon maa ngi lay félicité ci sécurité réew mi di jaay nag billaay damaa jooy ñii ñu rey ba ñu doon dóom dara jaru ko ci àdduna maa ngi la ciy félicité xam naa subaak jàmm nag ñu waar ma mais bañ ma ko ma ci waar li ma lay félicité mooy sécurité bi nga xam ne am na nañu jàmm di félicité it nag sagaañi tubaar fakal la gendre ak police ak ñëpp ñu leen di félicité waaw léegi nag damay laaj ana xemes xemes mi nga xam ne moo leen dugal ci kàmb gii tëb rek ñu fal ko moo neelu rek fàtte ne pouvoir la day dem mu ne Karim lekk na deux vingt quatre mille milliards ana xemes tey jii day sikkim ganeeti na ndax xam na ne Karim Wade du sàcc xam na ne Karim Wade du naafeq baayam bu sàcc baam du triché baam du nafiq baam nit ku bax la té gaynde du jur gaynde xar du jur mous gaynde gaynde lay jur Karim wal bi ngay convoqué France né bu ko nexon bañ ñew parce que nationalité française la yoroon mais dafa né damay ñew man walo la dëkk dama naan bour ci ci gànjool émir ci Qatar ki lu mu nam lan lan nam bu ko nexon bañ ñew ñëw ñu tëj ko ñetti at ak ñaari wër Karim mas sa bind mas sa dem pavillon spécial parce que gor la yëfi dérëk la amul loo koy waxal te barke Serigne fallu mi ma yaakaar ma bokk ak yow xam nga ne Karim Wade fonction yi ñu ko dénk cent franc buñ ko ci jàppoon man ma xaru ñun waalo waalo lañ waaye duñ sàcc ana xemes tey ana CREI CREI est englouti par les eaux de la vérité d'aujourd'hui tôt ou tard la vérité finira par triompher ana créé créé jàpp Karim Wade moo jàpp Aïda Ndiongue bëgg a jàpp ñeneen ñiñ soxla jàpp nañ leen ña ca des ñu bàyyi leen Aïda Ndiongue masul gérer dañel public masul doon ministre masul doon dara yor alalam ñu ne ko tiib dama ne on est dans quel pays yàlla léegi à saasu maam la du leble day fay bopp ana xemes ma ca périg ba xemes fu mu nekk tey fii la toogoon yaakaar ne dañ koy fal mu am espoir dafa war Ablaye Wade ci lu dul dëgg war Karim Wade ci lu dul dëgg loolu tax kenn falu kenn kenn falu ko ana mu tey xalaatu loon ne CREI dina ko andil bi carence te day jëm kanam ndax nag ak du yëpp mais dina dal may remercier responsable PDS yépp parce que 12 ans de dur là-bas de de de de chagrin ngeen mu ñu ñu di wax Karim Wade lu ne ñuy joy guddi di joy bëccëg ana mu tey man de je suis fier d'être là aujourd'hui fii am naa droit taxaw fi fukki atal naa nga mari ko xeex tey yàlla indi na dëgg yaa yàlla jëlaalu wasal kiram mataluma waaye yow ni nga bëgg a nekk nii Yeah. <laughs>